waaye imaam Aline Moussa Samb moo jiite tey tisbaar sëriñ Babacar Sy Abdou mu ngi nii ñëwoon ci ndigalu xalifa bi ndax bañ koy door moom la yabaloon mu ñëw ñaan ubbi ñu liggéey ba yegg si fii tey di waajal la 14 septembre pour yóbbul xalifa bi caabi ji yàlla miy dogal dogal Masya allah ñu ñëw fas yéene insha allah Ubi, li nga xam ne mooy jumaa ji ñu julli fi tisbaa sëriñ babacar si mansour mu ngi nii sëriñ babacar si abdi mu ngi nii masha allah xam naa ñu ngi may oo ci photo bi maa ngi photo te ñëw mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi fii ci juma bu maam Cheikh Sidi El Hadj Malick radiallahu taala anhu may wax ne képp ku gis image yi rek sa xol luy tolloog tarfatal ay nii ngëm yàlla nekk ci da nga ndax néeg bu nekk mu mérité ñu defar ko mu mel na mu war a mel rawatina néegu sunu borom subhanahu wa taala dana jaadu képp kenn ci jullit bi képp kenn ci taalibe yi Seydi Hadji mu am fierté ci yëg ne fii sama ñaar dërëm dem na ci doonte dañ ci jënd benn saaku siman mu dem ci jumaa ji mu doon mbégte ci yow ba jamono ji ñu war a nekk ci wàccaayu lal moket yi la 14 septembre incha allah ñu fas yéene dem joxi xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour caabi jumaa waaye du tee nag liggéey bi desaat na lu bari ndax biir gi moom alhamdulilah waaye biti gi parasol yi war a def ci biti ay milliards la dana doon fierté lool taalibi bi gis image bi ne man vingt mille francs yi doon laajkat joxe gu ko woon naa ko joxe wala mënuma vingt mille waaye dinaa joxe cinq ngir rekk mu doon mbégte ak kontante mbokk yi jaa ngeen jëf yal na yàlla fay leen yiw yal na yàlla taxawu leen yal yàlla guddal seen fan yokk seen wér wuyu ngeen nitu yàlla bu mata wuyu muy maam Cheikh Sidi El Hadj wuyu ngeen njabootum gu tedd gii ko wuutu xalifa bi nekk ca kanam ba kanam njabot gi muy sering Babacar ci Mansour ba mu wootelee maamam jumaa ji ne dafa fas yene yaatalal ko koko tabaxal koko mu mel ni mu wara mel taalibe bu nek lekko nano noppolu wo ñawara dem ci internet ba ñang ci internet ñu wara wacc ci terrain bi ñu ngi wacc ci terrain bi ñu wara a lamb seeni pos lamb seeni pos kon tuti wul no ngi ñaan yalla yalla fay ñepp yu waye li olof di wax ne li de jek na ni bakkan ci xarxanam waye dekk mam sida haj malik bi ñu defal ko fi juma ju mel ni jek na ni bakkan ci xarxanam kenn du dajeeg mom mom, ca kanamam kanamu sunu borom di rus ndax duggal nga ci sa alal juma ji ni mu mel yéme ya na rafet na yalla yalla fay ñëpp yu gis nga juma jigéen ñu mo nekk nële la ñi di gis ngeen ko ñi ngi war lal moket di incha allah ngeen fi ñi préparer pour dali fi ñu wara a dali mom lañ wara a ci bir ji mbokk yi ah man de dama nan dal jaa jëf yeen wa yeen wa Sénégal jaa jëf julit yi nga dugal nañ ci sen alal ba sax ñi doonul julit dugal ci seen alal yal na yàlla fay yiw mbooleem koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla yokk seen wér mbokk yi ñi nekk ci internet bi xale yi jug ne daal ñun li nu yitteel mooy nañ taxaw wootem sunu wayjur bu tedd bi khalifa bu tedd bi serigne Babacar si Mansour ñu deggelal ko gis ngeen ñu ngi ni di teste son bi son sonorisation bi ñu ngi ni di ko teste gis ngeen moket yi ñi nga neele amna luñu jotalal juma ju ñeuk ja ndaysan mu ngi ni xam ngeen ne li ah histoire daf koy bind ba faw nañu waxee ne jumaa yenentu bi sallallahu alayhi wa nga xam ne boo demee Medinatu Munawwar da nga fa fekk moquette yu wert yuñ lal mu wane ne fii moo nekkoon juma jumaa yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam fii la yamoon waaye jumaa ji jumaa ju njëkk ji nga xam ne moom la fi Sidi Hadji defoon ak mbokku taalibe yi ba mu mën a mel nii mu mel kon nak mbokk yi li dal mbekté le mu reuy kontante mu reuy la yalla yalla fay ñepp yu juma ji ñëk jaangi ni ndaysan gis ngeen lal nañ sax moké di ndaysan allahu akbar waaw mu ngi ni gis ngeen juma ju ñëk gu maam Sidi bi gis nga ko gis nga moket yi moom lañ def ci jumaa ji ndeysaan waaw yal na yàlla fay yiw ñëpp waaw jumaa jaa ngi nii gis nga ko kaw gi dañ kaa muuree vert waaye gis nga kupp kuppalu jumaa ji tiim ko nii xam ne lii yitte ju rëy la taxawaay bu rëy la yal na yàlla fay ñëpp yiw yal yàlla guddal fanu ñëpp waaw jumaa ju njëkk jaa ngi nii waaw mihrab baa ngi nii mbokk yi ñu ngi nekk ci wàccaayu ubbite jumaa ji incha allah lii daal dama ne woon rek dafa doon mbégte naa def vidéo wan leen ko incha allah gis ngeen mi ngi ni mbokk yaa ngi nii toog ñu jàng dara ci alquran pour mu doon benn vidéo boo xam ne dafay def insha allah kon nag mbokk yi noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp damay wax ne ku yéene yàlla lum toll nii defal ko lu ni toll soo gëmul yàlla xaw ma kuy gëm yàlla ku yéene yàlla lu ni toll ñu jël alal ju ñu tollu defal ko yalla ci kaw suuf bo gëmul yalla xaw kuy gëm yàlla jaa ngeen jëf wa rahmatullahi wa barakatuh fa tabarakallah mu melni moket yi kep ku min di dem masjidu nabawi muy jàkka yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam fa gis moket yi kon li lu ama am solo la sha allah moke di lañ fasiyene lal mu daj ci juma mam sir Hadj malik bi yëpp radiallahu taala anhu melni moke di moket yi na ñetti conteneur li rek lañ lalandi pour exposer ko pour mu symboliser ni nga xamne mom lañ fasiyene lalay juma ji yeb kon moke di yaangi ni wa tabarakallah yalna na yàlla fay yiw ñep kep ku ci dugal alalam kep ku amon yene def ci ta manoo yàlla na yàlla fay la yiw mu melni li day wone rek bolo ak bolo mbolo buñu ande luñu jëm man ko ta melna ni wa tabaarakallah lii ta ci porosé yi porosé ba nek Paris zawiya ba jàpp naa ne képp kuy taalibe war naa cee dugal sa alal walla ngay jullit projet zawiya ba nekk New nga xam ne fa tabaarakallah ba léegi ñu ngi dajale pour lu ko fay warta dagg ba nekk Italie ba nekk feneen ak feneen kon mbokk taalibe yi nii la de nii la buñ wootee tee bu kenn xeeb ku am 1000 francs dugalal ku am 500 dugalal ku am 5000 dugalal ku am 10000 dugalal ku am ba 1 million dugalal jazaakumullahu xayran yal na yàlla fay leen yiw defe naa dana bëri taalibe bu xool jumaa ji te du rus ndax day yëg ne alalam dem na ci soo joxee it te ka nga jox defal defal defalul la ko ci na nga yëg ne yàlla bindal na la yiw def nga ci jumaa ji ndax yow joxe nga ka nga jox moo joxewul kon mbokk yi noo ngi sant noo ngi gërëm jàpp naa ne ni ñenn ñi di xoole jumaa ji am mbégt mu doon fierté ci ñoom ah nit dana xool jumaa ji rus ndax amaana bés jox nañ ko xaalisu jumaa ji mu lekk ñàkkul waaye damay faral di wax ne ku yéene sa bopp di laaj ci turu yàlla ñu jox la nga lekk ko ku ko yéene sa bopp sax ci doo dëñ di ko def kon nag noo ngi sant noo ngi gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.